coow yi amoon ci bisub élection législative 2017 ci dëkk bii di Touba ba waraloon ak yàq ak ak salfaañe ci yenn béréb yoo xamante ni war nañ faa ba taxoon ñu teg loxo ñenn ci responsable politique yi dëkk fii ci Touba coow loolu ba tey jeexagul ginnaaw bi nga xamante ni élection yi jàll na ngir wéyal liggéeyam yoon nag wàcc na ci dëkk bu tedd bii di Touba lu ñu tumbir yi ànd ci ak police ba képp koo xamante ni sa loxo laale na ci mbir moomu jàpp nañ la loolu nag tax nañuy jàpp ñaar responsable politique muy Assane fare ci kujje gi ak euh, Morlo di responsable politique APR ak ñeneen ñi nga xamante ni nii jëf wala vidéo yi wane nañ leen ba jamono yi jàpp nañ leen gannaaw ban jàppee ñaari responsable yooyu téye leen ñaari fan ci commissariat bu jànnatu ci Touba dañ leen a defere yóbbu leen fële ca parquet bu njaareem ñu waran leen a atte alxamis bi ñu génn waaye dañ ko dàqandi ba alxamis bi di ñëw ngir jàppale ki nga xamante ni di Morlo ñi nga xam ne ñoo di ndaw yi féete ci APR wote na ndaje mu mag ngir nak yëkëti seen cadeau buñ sukkandikoo ci seen cadeau butuba ne nan commissaire bu Touba tëddeewut njaaxaanaay ci mbir ndax ñi nga xam ni ñoo sabab mbir mi muy euh, njabootuk Serigne Baara Dolli muy les frères Dolli ñoom jamono yi bàyyi nañ leen ci seen afiya morlo mi nga xam ne nag laalew ci ñu jàpp ko buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ndaw ñu wax nañ ko ba sabab ñu woote nag ndaje mu mag yëkkati seen kàddu ngir nag ñu bàyyi nu mu gën seen camarade bii di morlo ñu déglu Basirou Diagne mi doon wax ci seen kàddu ndaw yi nekk ci biir parti APR ñoo dajaloo ngir def benn jàngat ginnaaw bi élection législative yi jàllee mu am ay coow yu bari yu ci am ba tax ci wàllum yoon ñu topp ñenn ñoo xamante ne si ci ñun lañu bokk euh, loolu ñii seetlu gisoon nañ ne jafe-jafe yooyu mu ngi tàmbali woon am ndax niñ ko waxee le 15 juillet ci kër suñu benn responsable bu ñuy wax Aji Seck la tàmbalee woon ndax commission administrative bi nga xamante ne si moo doon séddale carte d'identité moo fa demoon te ña demoon songu leen xam nañ ne waa coalition gagnante watu Sénégal la ñu dem fa songu leen ba gaañ fa ay nit ci ñoom jël ab lim bu takku ci carte d'identité yi yóbbaale ko ginnaaw bi bi ñu leen toppee ci wàllum yoon am na xaaj boo xam ne delloo si nañ ko waaye ba ca des ba léegi gisaguñ ko coow loolu moo ñu topp ba ci biir élection yi ñu gis ne ñoom xëy na position bi ñu nekkoon xëy na position de faiblesse la waaye jàpp nañ ne duñ gagné élection yi ñu ne nañ continuer ci noonu pour yàq ba ci jouru élection yi de le 30 juillet ñu defaat lu mel noonu. ba jiitu mooy ay bulletin lañ wax ba tegal suñu benn frère bu ñu wax Morlo di responsable politique nekkoon mandataire ci biir benn bokk yaakaar ab ndëgg boo xam ne yàlla moo ci def jàmm waaye bakkanam mënoon na caa des ñu continuer di yàq yàq lu tolloog ñaar téeméeri bureau ak ñaar fukk yoo xamante ne si élection waroon na fa am xañ askan woo xam ne waroon nañoo exprimer wu ci jour boobu ba tey ñu bàyyi leen léegi nag li gën a doy waar ci mbir mi mooy bi élection yi jàllee ñu jàpp ne yoon dina def liggéeyam ñu toog di xaar ñu woo ci ñun ba moorloo moomu ci la bokk li gën a doy waar ci mbir mi nag mooy moorloo gisul laalul taqul fekkewul ñu woolu ko ci yoon bi mu ñëwee ci bis bi ñim ko seqaloon di waa coalition gañant muy waa kër sëñ Bara Dolly di sëñ Cheikh Mbacke Bara Dolly ak Cheikh Abdou mën nañ leen citer nommément ñoom la ko seqaloon ci ay vidéo yu wér am ay firnde gis nañ leen ñuy yàq moonte Morlo de li tax ñu téye ko ab taximaan moo ñëw boo xam ne ci lu wér xam nañ ne ci biir campagne bi yëpp ñoom coalition gagnante boobu la doon àndal kon kooku jàpp nañ ne doyul seede ci ne da koo gis rek waa ki ne da nekk dafa gis ak ki ne dañ laa gis nga ne fàng ci ab vidéo kan lañ ci war a téye kon moo tax ñu ne moorloo ci téye biñ ko téye du yoon léegi nag ñun moom ay taalibe lañ njëkk ñuy doon ay politique sëriñ bi dafa digle woon ci dëkk bi ne lu fi waay di def na ko teg ci teggin akub yar bien vrai que ñun ci parti au pouvoir lañ bokk waaye tamit ndigalul sëriñ bi moonu nu gënal lépp te loolu lañ doon topp ñoom nag gis nañ ne saa bu sëriñ bi digle ñu teggi teg ne saa bu sëriñ bi waxee ñu ne duñ ko jafe ñun nag président lañ àndal. kon lépp lu ñuy dimbalee président tamit mooy fexe tënku ci ndigalu sëriñ bi suñu avocat li ñu gën a garaaw gën a doy waar ci mbir mi mooy bi ñu demee Jurbel ñu jàpp ne ñoo ñu nga xam ne dañ leen gis ci ay video ñuy yàq ñu ne procès verbal bi ñu jébbal procureur gisuñu ci benn yoon seen aw ñu ne nag kon fan la dëgg féete ki nga xamante ne si day yàq te ñu gis ko am ci ay firnde yu wër ak ki nga xam ne benn nit rek moo ñëw seede ne da gis ñu jàpp ñu ne loolu kon tee na suñu xel moo taxoon ñu ne tey nañ woote ñu def ci ab jàngat léegi nag dañuy politique te ñiñ ko séqal jàpp nañ ne ñoom ci violence lañ amee li ñu am waaye dootuñu leen bàyyee dara loolu moom dañuy jël témoin askan wi yëpp dootuñu leen bàyyeet dara lépp lu leen jaral pour yàq ñu nit danañu ko jaral pour la ak ñoom ndax ñii xam naa ne teraanga taxu leen a jóg dégg ndigal taxu leen a jóg mais nañ leen wuyu ci li ñuy li ñuy woo waaye suñu frère Mor Lo ba tey jii ñu jàkkaarloog yéen jàpp nañ ne deful dara li ñuy demandé nag ci wàllum yoon ñu bàyyi Mor ci saasa ndax ku deful dara kenn warulaa tëj di bàyyi koo xamante ne si moo def te askan wi yëpp seede nañ ne moo def ki def ba pare teg ci làmmiñam ne maa def ak ki nga xam ne nag dañ koo jiñ jàpp naa ne waruñoo bokk place kon donc liñ bëgg mooy. jël témoin sénégalais yëpp bu fekkee yoon am na ci réew mi ñu bàyyi moorloo ci ni mu gën a gaawe te jàpp waa kër sëñ Bara Dolly yi nga xamante ne si dañ ne fang ci dëkk bi lépp lu sëriñ bi digle ñu lank ba pare di doxe seen maa tey ci biir dëkk bi loolu daal la ñuy sàkku tey ji moom moo ñu tax a daje ak lu mën a am rek jamono yi ñaari responsable yi gën a fës ci mbir mi ci dëkk bi di tuuba ñu teg leen loxo muy asan mbàkke fare ci kujje gi ak Morlo fare ci pouvoir bi jamono yi ña nga ca parquet bu njaareem ñu war leen a atte alxames bi di ñëw ak képp ko xamante ni laal nga ci laale nga ci jamono yi nag coow yi bëri na lool kujje gi ak ñi nga xam ne ñoo di nguur gi ku nekk a ngi woote ay ndaje ngir teggi tuuma ci sa bopp teg ko sa morom ak lu ci mën a am rek jamono yi mbir mi mu ngi ci loxoy yoon ñu xool naka la wànnet di mujjee ak i gëtam